boo gisee ku la ne laajuma la lenn lu dul ngay fekk si ma kon danga fay dem waaye mënuñu nekk lu weesu nit nit rek la ñu mën a nekk kon lu ñu am am am am engagement faw ñu am organisation boo xam ne dinañu permettre ñëpp mën ci gis seen bopp loolu nekk une première difficulté deuxième difficulté bi mooy période du élection dafa metti parce que ñu bari dañuy jàpp ne mooy période de trait wala politiciens yi saa bu ñu leen doon soxla duñ leen gis léegi comme ñoom ñoo soxla nit ñi fow nit ñi gestu seen soxla loolu aussi nekk beneen contrainte waaye ci yéen ñi jël parole surtout suñu mbokk mi nga xam ne moo njëkk jël parole mu wax duudu mu wax wax bu am solo ma koy remercier bu baax ci franchise parce que yàgg nañ di romb fii man bu ma doon ñëw cité mini yéen ñi ñu ci bëri ci boppu koñ bi ngeen doon toog di ngeen ma ree di ngeen ma accueillir donte du ngeen ñëw ci la ma doon def mais dangeen may defal teraanga respecté ma waxtaan teral ma d'après doo di continuer toog fi ngeen toog man ma dugg si def li may def génn kon xamante nañ mais danga wax lu ama ama am solo da nga ne suñu yaay yi xaw ma loo leen defal mais ñoom nee nañ yow la ñu àndal li ma leen defal ñoom xam nañ ko ay at ngi nii ñuy jëflante ay ata ngi nii sama tànk di tegu fii mais tey ma wax leen leen gis nga ñii ni ma leen jàppee jàppewuma ko kenn parce que musuma xewle luñ leen woote ñëwuñu musul am fu may dem fu may dem dañu ñëw ànd ak man bañ nañ ko ba ku ma ci gis day laxasu ak ñi nga xam ne ñoo doon teñ ñu keroog ñu ngi nii ñoom ñëpp ak seen doom yi ñoom ñëpp lañ xam dem nañ fi ba meeting arena ma ne amul lenn loo xam ne man dinaa ko yëkkati te ñoom ñii duma leen gis sama siège yëpp lañu xam gis nga bi ma demee ba gis ñoom ñu taxaw taxawaay boobu xam nga lan laa def fii laa ñëw ñu def fi daje bu mel nii teg président bi fee ñu waxtaan ñu ne ñu léegi ministre nga lan lañu ñu mën a def keroog jeunes yaa ngi fi ñoom maire yaa ngi fi ci la financement boobu muy tudd lañ leen ko joxe woon mu nekk subvention ñu ne leen loo leen di def ñu ne ñun jigéen ñëpp a ngi nii ma ne leen kon subventionné naa leen ngeen xool nan ngeen koy liggéeyee seen biir ñu ne ma ndax fay la ma ne leen déedéet du fay subvention amul fay yéen a ko moom mais lenn rek laay sàkku ci yéen seet leen nu ngeen di koy liggéeyee seen biir bu ci kenn mer na ci ñëpp bokk ndax ñoom ñii ku ci nekk xam naa ne plate la yor di jaay ñii géej ñii lii ñii la ca des seeni plate la ñu yor waaye saa bu ma leen wooyee fii la ñuy teg plate yi kon loolu ñu leen jox ñoom ñoo dem gis seen biir def seen organisation bopp ak seen fonctionnement bopp ma leen di féliciter ndax bi ñu leen joxee subvention bi bàyyi wuñ leen de am na sax GIE bu ñu leen waroon defaral lépp frais yi ñu ñoo ko def ñoom maire yi pare keroog am na jeunes yu fi nekkoon ku ñuy wax ba je crois <coughs> moo waxoon ci turu jeunes yëpp ñu présenté ma ñetti projet ci saa si fi ñu toog la étudier projet yi ne leen ñetti projet dafa bëri nit doo songandoor ñetti mbir dañuy song benn ci ñetti projet yëpp bi ma ko xoolee bi ci gënoon plausible pour ñu réaliser ko ma jël boobu ne leen dinaa leen financer intégralement projet bi ñu xool ñu topp leen nag ñu financer leen ñu topp di xool kon tàmbali am na te tàmbali boo xam ne dañu bëgg mu durable parce que foofu la ñu maire yi doon xaar te bu ñu seetoon par parloo ci liggéey bi wala liggéeyu politique ndax li may wax ni mat na ñaari at boobu nekk ñu ci campagne li may wax ni mat na ñaari at te boobu ba léegi ñu ngi koy topp am na yuy réussir am na yu dul réussir moo tax mënuñu songandoor projet yu bëri parce que ressource yi ñu yore ressource publique la tudd ressource publique mooy Sénégal yëpp a ko moom moo tax ngeen di gis ñuy wër Sénégal yëpp di joxe kon bu ñuy joxe d'abord dañuy def phase test ñu tànn ñaar ci mbooloo jox leen topp ñaar ñooñu pour xam ndax modèle bi ñuy def mi ngi dox walla du dox mais tey jàpp naa ne modèle bi dox na parce que yéen ñii aussi jàpp ngeen ne affaire bi doyul dafa war a yokk ça veut que modèle bi dox na parce que ñeneen ñaa ngi ciy gis seen bopp loolu benn la mais beneen bi ci des xam nga lu tax ma fonk xale yi may topp ñi may topp ñëpp xam nga lu tax ma fonk leen ndax amul kenn koo xam ne jox naa ko ci un franc rawatina. rawatina jeunes yi gis nga mbooloo bi ma yor yëpp bu doon mbooloo booy jox xaalis du toll ni ndax doo am loo leen jox moo tax ndeysaan dama leen yërëm parce que dañuy xeex rek mboo ne lu loo jotee ki nga ki mu ne nee na danga maa jox 5000 pour ma ànd ak yow rek daa di songo ma ne leen cinq 5000 bi du ngeen ko jot de fii moom xeex wuti bu ñëwee ñu ànd bokk jëf c'est ça ma vision man loolu laa xam ci politique. parce que action dafay durable te li ngeen wax nii en terme de xëy ne ñun ay ndaw lañ dañu bëgg li état bi di joxe muy yegsi ci ñun mais lii tax loolu gën a nekk walla lii tax mu nekk premier élément bi premier critère bi mooy comportement bi te le comportement mooy nga wane ne am nga gëm-gëm am nga rigueur ci sa bopp te li nga sëf seq ak nit ki du xaalis moo tax gëm naa ne bu ñu àndandooree wuti mairie bi SICAP am na tey opportunité boo xam ne mosu ko am te wax nga ko duudu mooy ñu ne ministre bi ñoo bokk dëkk fierté la ministre boobu ñu am dafa nekk ay opportunité boo jëlee ministère xam nga communes yi <laughs> li ñu war a def bari na mais communes yi seen moyen dafa tuuti par rapport ak liggéey bi ñu war a def kon commune fu muy mën a jëlee moyen mooy ci ville bi parce que la ville n'a pas de territoire c'est un territoire virtuel la ville est composée des communes communes yi moo composé foofu la ville bi di jëree territoire te ville bi dafa am ressource kon ressource yooyu ville de Dakar yore mais daf koy delloo ci gox goxaati kon ñun bu ñu amee maire commune Benno Bokk Yaakaar am maire de ville Benno Bokk Yaakaar mais c'est plus de d'opportunité et ça veut dire que c'est plus de moyens pour régler problème yi ñu am kon tey dañu war a boole ñaari scrutin yooyu ànd ak moom ba pare maire bi signé pacte ak population yi parce que li wóor mooy ñun mën nañ fi nekkal ñëpp en tant que ministre mais en tant que maire sama gox rek laay nekkal musuma nekk maire nag waaye ñetti at a ngi nii ma nekk ci gouvernement te jàpp nañ li ñu liggéey dal na xel lu war a maye ñu gën a lëkkaloo pour jël suñu mairie nag teg ko suñu loxo yii mais réalité aussi dafa am ak gi nga xam ne nit ñi dañu ko soxla dafa am kon moom mi tase nañ keroog mu jox ma projet nekk di liggéey parce que man am na yenn métier yoo xam ne boo ci nekkee ci critères yi ñu fixe ministère bi c'est c'est sans réflexion dañ lay financé te moom métier bi muy def ci la bokk artisan mais xam nga lu tax ba léegi financé gu ko mi ma topp boobu ba léegi mënoon nañ ko financer mais nee na xam nga yi nag seen xel day waaj a dem bu ma ci dugalee financement bi dañuy saalit dañ naan financement yee tax ma gañe leen te dama leen bëgg bàcc bàcc yu leer naañ ñu dama leen bëgg a bàcc ba ñu def dix appui moo tax mi ngi nii toog tey mat na. jërëjëf.